asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi maa ngi la nuyu di la ziyaara ah, di la baal xaq di la baalu xaq mu mel ni dañuy dikkaak ak cheikhul qawmi di xaaji Mansour si ibnu cheikh alxaaji Malik radiallahu taala anhuma ci fi ñu yemoon ak moom ñi ngi tolloon ak moom nag ci tey xasiida goo xam ne dafa jël alxaaju malik si ibnu osmaan xaraf wu ne mu def ko benn bayt jaare ci def tawassul ci moom mu ne ida jaara alzamaanu alayka daari bi azmin laa yazaalu wa bistibaari ne bu fekke jamono dafa dëgër ci yow mbaamu mu jeng mbaa ngay nekk ci nattooki tolof-tolof jéema la maslante ak jamono ci dogu nag ak pastif bu ma sëkk nag waaye itam ànd ak muñ de ndax muñ itam di jéem maslante moom te àndut ak muñ it du sotti ndax maslante googu moom ngay def foog dafay ànd ak muñ tax mbir mën a sotti nee na ida jaara bu fekkee jeng na azamaanu jamono waaye xam nga ne kooku moom jeng gi dañ ko wéer ci jamono rek loolu jàng nga atte boobu hmm? alayka ci yow daari yi maslaalanteeg moom bi azmin ci dogu laa yazaalu dañ wa bistibaari ànd ak muñ goo xam ne tabaarakallahu moom nga koy mu pour mbir mën a sotti li xaajika inda baabil xaaji waxtun sa tuqda min kibaarin aw sigaari nee na sa soxla bi nga am sa aajo bi nga am ñëwal ab diir ci buntu Cheikh Alxaaj Malik déey ko ko taasu ci barkeem yàlla na la ko fajal moo xam aajo ja ju mag la wala ju ndaw la moo tax li xaaji ka ñeel na sa soxla boobu inda baabil xaaji fa buntu Cheikh Al Hadj Malick na ko fa waxtu waxtu woo xam ne da fa toog pour def tawassul ci moom sa toq daa dees na la atteel mooy dees na la fajal rek aajo booba min kibaarin laal mu aajo bu mag la aw sigaari wala aajo bu ndaw la soxla bu mën di doon rek tabarakallahu booba yàlla mën na la ko fajal ci barke Cheikh Al Hadj Malick nga ñëw ci kaa gi mu ne xalaftu wamal yaminu yamina xinsin lahu la nu maniu li kulli jaari sëriñ bi nee na maa ngi waat te waat gi nag ragaluma ci ak teñu de teñu mooy la nga waxoon dal di tebbiku ñu ne la nga waxoon du noonu bi la nga giñoon daal ñu gis ne amul wala nekkul ñu ay cakaay ñu ne da ngaa teñu moo ne nag giñ lii may giñ ci seen xaaj mali nag ragaluma ci ak teñu moo tax mu ne xalaftu giñ naa te wamal yamin di sama ngiñ loola yamin xin si mu nekk ngi ne lu ñuy teñoo de lahu ñeel na seel xaaj malik alxisnu tata mooy làqokaay almaniu bay aji aare li kulli jaari ñeel bépp aji jeng joo xam ne jamono jeng na ci moom jaaxle na ci moom tabarakallahu ne aruumu jiddan nawaalaka kulla waxtin wa assa fiika yaa aalil manaari nee na maa ngi sàkku ci say may nag yow Cheikh Hadj Malick ci bépp jamono waaye maa ngi koy wutee ci farlu de mbir mu mën di doon rek dama cee boole wala ak farlu ma taas taas ci sa barke dama ci boole wala de ak des jéem a saafara ci mboolem jàngoro yow mi nga xam ne yaay aji kawe ji sooroor arumu dina sakku ci alif ga nawaala ka sa ay may jiddan nag ci farlu de kul la waxtin bépp temps te waa su fekkee dinaa sàkkoo saafara ci yow. yaa alil manaar yow mi nga xam ne yaay aji yëkkatiku ji sooroor wala yaay aji yëkkatiku jaloore yaay tur lu ne nee na jadaaka huwal jada libni faqirin yaduusu min an nawaibi bisawaari mu ñëw ci jiim bi nee na sa ay may yow Cheikh El Hadj Malick huwa moom kese kese laa wax de al jada moom rakay may libni faqirin libnin mu jëm ci doom joo xam ne faqirin aji aajo woola te mooy moom mii yaluusu koog dana wéeru minan nawaa'ibi bàyyi ko ci xew-xew yi muy wéeru bi sawaari ci miiru seen xaaj mali pour yàlla fajal ko aajo yooyu muciini mursidi saadi muraadi fa inni inda baabika duftiqaari nee na ko muciini yow mi nga xam ne yaay aji dimbale ma mursidi yow mi nga xam ne yaay aji orienté ba ma mel nii ma mel saadi yow mi nga xam ne yaay sama texe muraadi yow mi nga xam ne yaay sama namm namm amu beneen bëgg-bëgg bu dul yow fa inni man xaaji Mansour zuftiqaarin boromuk aaji woola inda babika maa ngi nii nag ci sa bunt bi taxaw di xool kañ nga may wax entré dégg nga ko nee na unaajikum bi amrin laysa yaxfa alayka bi sawti abdin zinkisaari nee na yow bàyyi nag man ñëw naa fi di leen di ay soxla mbir yoo xam ne nëbbuwul xam nga ko sax nag maa ngi koy defee ci baat boo xam ne baatu toroxlu ak mokk mokkulu xol bu damm ci digganteeg moom moo tax mu ne unaa jikum dinaa diyaaleeg yéen bi am riñ ci mbir moo xam ne lay sa yax fa alayka nëbbuwul ci yow maa ngi koy defee nag bi sawti abdin ci kaddu jaam boo xam ne dañ ki saani kay borom ak damm dammul wala mokk mokkulu ci digganteem ak boromam ndax yow mu laka noma alayya fa anta fardun tafarrada fi l usuli wa fi najaari ma ngoog moo tax mu ne lakka ñeel na la yow baay a ak xiiwal alayya ci man fa anta yow baay fardun kenn nga tafarrada wéet nga fil usuli ci cosaan yi ci maam yi wa fi najaar ak giir bani najaar googu le nga xam ne sooy topp maam ya fa lay dem kama luka laa yuxaalifu fiihi insun sawaun fil bihaari wa fil baraari mu ñëw ci kaaf gi nekk yow sag mat daal nit ak jinne kenn amu ci wuute waa géej ak jiiri yëpp xam nañ ne yow kenn nga moo tax ne kamaalu ko sag mat laa yu xaalifu du juyoo fii ca mat ga insun nit du ci wuute kenn sawaun aji yemala ku dëkkee fil bihaari wa fil baraari ak ku dëkkee jéeri saqal mawla bikal asxaaba turran min al irfaani kaasaati jiwaari nee na saka nandal na almawla aji méngoo suñu te mooy borom sa eh. bi ka ci yow dégg nga al ashaaba ñun ñëpp nandal ngaleen leen ga nga wala saka yàlla na nandal al mawla borom bi bi ka ci yow al ashaaba ak ñun ñi tural ñoom ñëpp min al irfani wala mu day day wax na Sidi Xaaj ma ne nandal na wala nandal na ku nandal al mawla borom ku mu nandal bi ka ci yow nandal na al asxaaba ñun ñu turoon mboole seen min al ci xam ak xam ne mooy xam yàlla ka saatil ci kaasi dëkkaale ak moom huna adcuuka ya rabbi dawaaman fa inni fi iftigaarin wa ditiraari ne adcuuka dinaa ñaan huna fii ya rabbi yow sama borom dawaa man ñaan gu sax ak aaju faju fa inni man xaaji mansuur fi iftiqaarin maa ngi nekk ci aajo wadd tiraari ak loru loru goo xam ne tabaarakallaahu dugg na ma ne anaxtu bi baabika alqulsa intijaan fa xud rasi ilayka wa xud azari nee na yësal naa ci sa buntu gileem pour jëgg ut lu ma fi amee sama bopp a ngi nii jëlal samay faas a ngi nii samay mustaas lépp jëlal moo tax mu ne anaxtu yësal naa alxulsa giléem ga bi baabeke ci sa bunt intijaan ngir ma ngirtewu wala ma jëggi pour ut lu ma am fa xus jëlal sama bopp ilayka jëm ci yow wa xus jëlal adaar yi samay faas dégg nga mooy samay naanu rek dégg nga anta bal anta maw ili fi kulli amrin wa kulli fi la xawaadiri wa saxaari bal li fi nekk mooy anta yow baay mu am mili yaay sama mébét fi kulli amrin di sama wéeruwaay di sama lépp fakkun li yàlla na nga nekk fil xawaadir yi ci teewaay yi mooy su ma nekkee ci dëkk téere wa saxaar yi ak dëkk àll yi di saxaraa bi yow dong yaa mën a jàppale naruumu bi fadlika saami qadaa'i li xaajina li xaajatina wa islaahi ziraari naruumu daañu sàkku bi fadlika ci sa mbaax assaami bay aji yëkkatiku qadaa'i ak faj li xaajatina ñeel sun ay soxla wa islaahi ziraari ak yéwénal sët yeeg njaboot yeeg yépp rek ñu ngi lay ñaan ci sa mbaax yàlla yéwénal yooyu yépp dégg nga ko bu baax alayka li daairika ida anaaqu qada alxaaji min kulli diyaari alayka maa ngi lay dénk yow see baay maa ngi lay ñaan maanaam ñaan gi ñag la dénk ba tey li daairika ñeel way ziyaare la ida anaaqu ndegam yësal nañu seeni gileem wala seeni soxlaak seeni otoog seeni lu mu mën doon maa ngi lay ñaan daal qada alxaaji fajug aajo yi min kulli diyaari ci bépp kër ndax sanaa'uka laa yusbihuhu sanaa'un bihi jarrati safa jarrati safa'in wal jaraari wal jawaari